te du yow te ginnaaw yàlla ak yonent bi buur bu baax suñuy ñaar wayju <laughs> man maa fi sax contesté ñëpp a jaaxle ñëpp a jaaxle merci pour la revue ñu ngi lay jëfal bu baax a baax a baax alors on ak euh, cas sur cas waaye ñu fàttali leen tey sur le plateau dinañ ànd ak euh, marañas Niass euh, dootuñ leen ko présenté tey mooy ànd ak ñun ci waxtaan bi mooy nekk suñu invité du jour il va nous rejoindre sur le plateau d'une minute à l'autre daal di ànd ak ñun ci waxtaan bi alors cas sur cas tey ngoon ni da nga def euh, suivi de cas daal di xóotal jëm ci euh, cas bi nga xamante ne moom nga indi woon na démb mu ñeel première bête ak seen patron bi nga xamante ne doon waaj a génn. Mhm. far ñu daal di koy jàpp. waaw ñu andiwaat tuuti précision bi ñuy wax démb dafa mel dañ ci boole xbet alors que première bête la. Mhm. Euh, première bête ak xbet dafa nekk ñaari structure yu différentes. ci biir bi sax rectifié nañ ko. waaw rectifié nga ko sax mhm. yow mi waaye xam nga <laughs> ñoom mami dañoo dañ te pourtant mhm. rectifié nga ko yow ci euh, euh, ci bi donc ci révélation yi ma mami tàmbali woon na ko wax sànq mhm. ci revue des titres euh, muy rek daal jàpp nañu ne ñu nekkee ci division des investigations criminelles mhm. lañu ca gis moom mooy dafa am trace mafia boo xam ne dañu ko daal di def moom juriste du tel mi nga xam ne nag da doon def tentative de fuite ñu daal di koy jàpp ci aéroport Blaise Diagne gis nañu ne daal dafa commencé woon liquider lépp loo xam ne am na ko fii ci Sénégal li nga xam ne itam nag daal koy euh, wax bokk na ci euh, licencié ñooñee nga xam ne moom mooy ay employé am te ñu doon wootee jàkkaarloo taskatu xibaar yi. Mhm. ndax li nga xam ne nag noonu la ñu ko yëgee. waaye tamit euh, gis nañ ne daal dafa amoon contrôle de routine bu ñu tàmbali woon mu amoon ab amoon bu 10 millions de francs CFA boo xam ne daal wax nañu ne te mu jógee ci fraude ak détournement bu jëm ci TVA boobule. première bet itam da doon def ay surfacturation ngir mën a am loo xam ne dina ko frauder enquête bi waa division des investigations criminelles itam daal dinañ ci révélé beneen scandale euh, financier boo xam ne daal dañu ko étouffé en interne loolu itam enquêteurs yi jot nañu ko cee xam sànq rek euh, mami mi ngi koy wax ne jabaram moo paniqué mhm. loolu waraloon rek mu daal di jël ay bagaasam ngir génn fi nga xam ne euh, moom mooy Sénégal muy explication ba mu joxee ginnaaw bu mu jàkkaarloo ak enquêteurs yooyu nekk ci division des investigations criminelles daal dinay Martin moom mi nga xam ne wax nañu ne am na 33 ans nekk nag ab ressortissant euh, français euh, déféré nañu ko nag démb euh, la koy toppee bokk na ci fraude fiscale ak détournement de deniers publics préjudice bi nag ni nga xamee ne xayma nañu ko toll na ci 12 milliards 259 millions de francs CFA ñu gis ne daal lu jëm. ci euh, contrôle boobee nga xam ne euh, wax nañu ne groupe Editec euh, moom moo ko waroon a def déclaration bénéficiaire bi itam def nañu ko waaye dafa mën amoon 10 millions boo xam dañ ko ko notifié woon. Mhm. ngir mu daal di koy fay bi ñuy def itam li nga xam ne routine la muy vérification yu ñuy def ci entreprise yooyu gis nañu ne effectué wul déclaration wu TVA bu mois d' octobre 2021 bu ñu estimé à 120 millions de francs CFA. ñu interpellé ko itam ci notification bu tiitre de perception mu daal di nag nee na tàmbali woon na fay à hauteur de 21 millions de francs CFA waaye itam waroon naa joxe lu toll ci 99 euh, millions de francs CFA euh, mi nga xam ne nag euh, dafa nekkoon titre exécutoire comme ni nga xam ne dañu koy faral di ko def ñetti at yu ne ginnaaw vérification général comptabilité yi di ko amal ci société yi waaye dañoo gis ne nag dafa am ay incohérence ci plan fiscal boobule ndax ci occasion boobee inspecteur u contrôle contrôleur yi dañ doon effectuer mission wu première bête waaye itam révélé nañu ne dafa am ay malversation financière euh, yu nekk ci biir société boobee ak ay produits yoo xam ne kenn déclaré wu ko yamuñu ci loolu itam am na ay surfacturation euh, en juin 2024 itam am na benn réunion de synthèse bu ñu def ci biir société boobee mm-hmm. euh, ba ñu constaté itam ne kii jiite première bet moom daal ci ay déclaration wam sincère ci woon te itam am na redressement fiscale boo xam ne notifié nañu ko mu toll ci 12 milliards de francs CFA mu porté itam si impôt société beeg ressources wax tam valeur ajoutée loolu itam ak droit d'enregistrement daal nañu koy xool waaye itam ci euh, procès verbal boobu nga xam ne euh, moom la ñu ko déglu mu nekk ci jàkkaarloom ak ñooñee euh, wax nañu ne nag recette yi mu doon collecté daf ko doon permetre mu war a fay droit wu timbre waaye itam redevance su état beeg li nga xam ne ñu ngi doon tudd LONASE ñu ne première bête tam envoyé na tableau de partage à la LONASE muy nga xam ne itam paiement yu gagnant yeeg balance de timbre redevance LONASE itam ak chiffres yi nga xam ne wax nañ ko société bi da doon passé au règlement moom loolu la détaillé muy juris Dutel moomee lu jëm tamit ci euh, irrégularité yi ñu ne dañ ko débusqué par le fisc Euh, wax na ne daal dafa ñëw fii ci euh, Sénégal euh, nga xam ne itam ci mois de septembre 2022 la fi ñëw remplacé itam Eric Assoun mi ñu licencié au même titre que directeur financier bi nekkoon ci première bête boobule ñoom li leen doon toppee moom mooy détournement ci lañ ko jëlee nag moom andi ko fii ci Sénégal ngir mu daal di leen remplacer ni mu fekkee société bi ak difficulté yi nga xam ne fekk na ko ci biir société bi itam loolu wax na ko ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi waaye lu jëm ci notification défaut déclaration TVA 120 millions yooyu la nee na courant 2023 daal dañu ko adressé benn correspondance pour xool est-ce que recevoir na euh, li ñuy woowee euh, notification d'exonération bu euh, TVA ak signature contrat bi nga xam ne am na ko ak l'ONAS wala sax les services compétents yu état bu Sénégal. Mm-hmm. Joris Dutel nag li mu avoué nee na. Euh, mosuñoo euh, recevoir exonération boo xam ne dañu ko bind euh, juste noom dañoo gëmoon ne LONASE daal moom moom la ñu war a jox boobule xaalis ci redressement bi nga xam ne toll na ci 12 milliards 259 millions yi ma leen wax léegi itam effectivement nee na am na ñetti weer équipe vérification ñëw nañu foofee ñu yónni leen fa ñu def contrôle général comptabilité yooyu daal di def fin requise pièces yi nga xam ne itam yépp récupéré nañu ko yu jóge ci LONASE ak lañ doon versé yépp ñooñee daal nañuy entrer en possession lépp li nga xam ne itam wax na ko daal euh, convaincre ñii di enquêteurs yi euh, tax na ba tey ci jamono jiwjee mi ngi ci yoon ñi xaaral xaaran itam ndax dañu koy placer su mandat dépôt dañu ubbi ab information judiciaire mm-hmm. euh, xam naa ne fii ak suba nañu ci am nañu ci leer d'accord te boo ci amee lu la leer di ko indiwaat man dama mm-hmm. bëggoon xam rek moom fan la xalaatoon dem dëkkam xalaatoon na génn daal daal di daal di daal di mm-hmm. ah, waaye du yombee noonu du du du yombee noonu di ñu ko toppal ba ñu xam incha allah lan moo ci rotee ci xibaar ñu mhm. partagé kook internet nga xam ne ñu ñuy seetaan ñu bàyyi xel tamit ñu ci ñàkk seen liggéey ndax premier bet bu bu tëjee démb rek ñu ngi koy fàttali am nañu employé woon nañ plus de mille jeunes yoo xamante ne dëgg yàlla ci lañ doon sukkandiku. Mhm. pour mën a liggéey bu tëjee it ñooñu dañ leen di yóbbu chômage technique. Mhm. te loolu it war nañ cee taxaw xool ban saafara lañ ci euh, def proposé woon nañ sax pour ci liquidation bi sept cent mille su te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nar a ñoo ñoo nar dund impact tëj bi. ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dund ci dund gu euh, metti wax dëgg yàlla. Hmm. te ñoom it nañ ko yëgee sax mettiwule euh, leen ndax benn ojo bu fuité lañu jot ñu xam ni euh, dañuy tëj premier bet yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox yeeg gox goxaan yi. donc mu nekk daal lu euh, doy waar xam naa ne ngoone dinañu ko toppal. ba indil ñu ci yeneen ay euh, ci ay xibaar yu gën a wér ñu fàttal leen Mara Niass la ñuy euh, àndal tey ci waxtaan bi. mooy nekk suñu gën bésu tey alors ñu jaajëfal ngoone ci cas sur cas mami pour la revue alors dañuy ànd ak régie dem daal di jàllale benn page publicitaire et revenir sur le plateau. CCPS, leader incontestable dans le domaine du sanitaire et de la tuyauterie, ouvre ses portes dans la ville sainte de Touba au niveau du rond-point Héliport. réew mi ku nekk jox cër CCPS ñu daal di ñëw nag ubbi ca Touba nga xam ne ñëpp dañu leen ràññee ci sanitaire